KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaax yu wër te leer. salaamaaleykum mbokku internet yu KMTV ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen dalaat beneen yoon ci seen bii di KMTV tey ñu ngi fi nga xam ne moo di stade municipal Diabou Ciss ñu reprendre li nga xam ne moo di match yi bien vrai que commencé woon ne ko depuis le 25 tey nag ñu amal waxtaan ki nga xam ne moo di usmaan Diouf nekk président zone 8D bu euh, commune bu Kër Mousse Ousmane ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga présenté wu. waa Amar ñu ngi lay fay. Mm-hmm. waaye tamit ginnaaw bu ñuy jullee ci yont bi. Mm-hmm. ginnaaw bi ñu sant yàlla jull ci yont bi. Mm-hmm. ñu ngi sant tamit waa KM TV. tamit di profité ci antenne bi di sant waa zone huit D bi yëpp. di sant waa zone sud yëpp. ah di wax ne dañuy profité ci antenne bi. wax tuuti ak euh, askanu zone sud. wala askanu zone huit D. ñu ñëw ci li waraloon match yi taxaw parce que dañoo remarqué ni taxaw na lu yàgg eh, benn nemoon na ba benn instant sax askan bi ñoom amatuñu woon confiance que ni match dina continuer est-ce mën nga ñu ñëw lan moo waraloon taxawaay bu metti boobu noonu match bi taxawoon. commencé woon nañ mois d'août. Mhm. ñu dem ba ci kanam tuuti ñu am benn arrêt. waaye mhm. arrêt boo tamit li ko waraloon loolu c'était au niveau de la gendarmerie. Mhm. yàlla dogal mu décanté wu. ñu doxalaat mu amaat benn arrêt. arrêt bi mujj nag mooy bi gën a yàgg li ko waraloon nag dafa am xeex yu amoon fële ci commune yu Fandène comme Fandène ak Keur Moussa ñoo bokk arrondissement sous-préfet génn ba benn arrêté arrêté toutes les activités yu nawetaan bu arrondissement bu Keur Moussa loolu tamit ñun ñu bokk ci parce que ci arrondissement bi la ñu nekk waaye bu yooyu yëpp amee tamit ñu def ci ay jéego def ci ay ay vraiment ay ay démarches ba yàlla mujj. yàlla def lépp sorti. ñu reprendre reprendre nañ ñu keroog le 25, cinq. tey jii mooy encore deuxième journée bu ñu organisé après la reprise. le 25, bi c' était la dernière journée match de poule yi. biñ ci paree SAE tey fa tey ñu ngi ci euh, les éliminatoires directs. mooy les quarts de finale. comme ni ngeen ko xamee rek match bi ci jiitu tey mooy diggante Renaissance de Kessouat ak ASC Landou. yàlla dogal ASC Renaissance bu Kessouat, door ko bi à zéro. deuxième match bi mu war a nekk diggante Mbadat mhm. ak arène sax de Soum waaye bu yooyu yëpp weesu tamit ñun dañuy ñëwaat wax tuuti ak askan bi mhm. par rapport ak vraiment li ñuy xaar ci ñoom mhm. ah ndax nawetaan bi yëpp comme ngeen gisee ñun dañ dañ nekk di koy jiite rek waaye ñun moomuñu ko gox bi moo ko moom zone wi de moo ko moom te képp ku yow fi rek ci a bokk kon lu ñu dénk la la gestion lu ñu dénk la un jour viendra ñun dañ koy bàyyi fi ñeneen ñëw jël la relève ñu continuer

ku ci nekk na ko jàppee noonu li mu ko jàppee boppam mu jàppee ko moromam su ko defee nawetaan bi mu mën a yëg ak jàmm beneen bi daaw xëy na lu mel ni arrivé woon nañu ba nawetaan daaw jeexut mais yàlla dogal na ren jii comme am na ba décanté wu na incha allah rabbi bëgg na mu jeex ndaxte bu ñu jógee ci xare final dañu dugg ci demi final yi ci gaawaay bu ñu jógee ci loolu dem ci final bi final bi sax ñu ngi ci demaat si parrain bi daanaka lépp ñu ci yoon bi mën nañu wax ne bientôt euh, lépp dina bëgg nañ tamit ren jii nag ñu def une finale wante aussi day ànd ak innovation ci côté yu bëri. Mhm. kon ci loolu nañ xam ne carrément ne zone bi day liggéey. Mhm. pour waa zone bi. Mhm. zone bi day liggéey. pour bàyyi fa ay trace bàyyi fa ay marques. ñi nga xam ne aussi ñooy ñëw. ñu jàpp ci loolu aussi defal ay marques ñu continuer. parce que le rayonnement de la zone. le développement de la zone. ça implique tout le monde. kon ñun la ñun ñoo doon ñu leen dirigeant képp ku nekk ci ci ci suñu ginnaaw duñu critiquer. ñëpp ne suñu ginnaaw li ñu poussé lépp dañ koy accepté ak philosophie ñu xam ne ñëpp ñu wax rek dañuy wax pour yëf yi gën a jëm kanam mais waxuñu pour mbir mi yàqu waaye ku ci nekk ci ku ci nekk sa bopp rek na nga am taxawaay responsable parce que loolu moo gën a am solo ci doomu aadama saa yoo amee taxawaay responsable di nga mën a wax avec objectivité plutôt que yow nga waxee avec subjectivité parce que subjectivité loolu des fois li muy yàq ma ëpp que li muy defar kon ñun ñëpp ñu am philosophie boobu noonu ñu jàpp ne zone bi li koy defar du ñu ko jiitu si kese. képp ku fi yaw rek ci nga bokk da ci war a jàpp mu jëm ci kanam. mais est-ce que est-ce que am ngeen def ngeen benn taxaw seetlu benn jàngat par rapport ak match yi nu mu taxawee et aussi ban jàngat ngeen def si loolu ci taxawaay match bi durée bi aussi. waa durée bi moom ñàkkul effet. Mhm. parce que dafa yàgg. Mhm. taxawaay bi. trop dafa yàgg trop parce que defe naa. Mhm. ëpp na sax un mois. kon yàgg na trop de ce si bëri xaw nañu relation. même joueurs yi sax ñu ci bëri xaw bàyyi. Euh, loolu tamit ñun dañ ci jéggelu rek di leen masawu coono ci loolu mhm. ah di wax ne peut être bon du du du lu ñu bëgg du suñu faute mhm. waaye tamit mhm. des fois milieu bi moo xaw a demee noonu parce que sous prévé moom moo arrêté arrêté ñëpp bu fekkoon ne dafa arrêté ñi nga xam aussi ñoo am problème ñoo def violence bi ko dafa arrêté ñooñu kon heure bi day fekk ñu ngi fanaan nañ bu yàgg waaye tamit comme moom moom mooy le sous préfet de l' arrondissement bu arrêté bu génnee une décision mu arrêté activité yi ci arrondissement a organiser sans pour autant ñu lever arrêté euh, xam naa ñu bëri tamit bi ñuy répandre sax ci bëri xam naa yéen a ko yëg sax parce que information bi tamit moo roon jàll ko robo bi jàllul carrément loolu ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax di wax ne vraiment bon loolu xëy na peut-être benn manquement la ci ñun mais bon xam nañ ko suñu biir ñu rectifier ko su ko defee ñun ñëpp ñoo xamante ne mbir yi répandre na ak force kon fu mu nekkee nii ñu ngi ci dóor tooki dañuy jëm final. Mhm. kon képp nga xam ne aussi yaa ngi yeew ci gox bi rek. Mhm. yaa ngi ñëw ci mbir mi yaa ngi ñëw ci activité yi ñu ngi lay woo tamit nga ñëwee ci respect. Mhm. nga ñëw ci ak sans violence. parce que loolu engagement boobu noonu. képp ku yeewu ca ASC yow donc koo def. balaa ngay sóobu ci yëf yi parce que dafa nekk ci réaffiliation bi. le fiche d'engagement bi ngay def lolou da ci nek da ngay engager que mm-hmm. tu vas cultiver le fair play mm-hmm. et bannir toute forme de violence mm-hmm. du moment que ASC bi engagé ci lolou rek donc tout est sacré et tenu à ce que ñu ko jëm respecter ñun ñëpp dañu lancé appel rek à tout le monde ñu xamné ne ñëpp ñu bokk mbir mi terrain ji bëggu ñu def ay innovation comme ni ma ko waxee sànq ci final bi bëggu ñu finaliste bi wala champion bi mu am lu duun liis bi ak la cay tegu comme trophée ay distinction yu yooyu dana bëri kon bëgg nañ tableau ren jii nii mhm. mu mhm. kon na ASC yi ñu gën a góorgóorlu mhm. supporters yi ñu soutenir seen ASC yi dirigeants yi ñu jàppale seen ASC yi ñu mën a ñu mën a àgg te final ba ba jël coupe bi donc ma jël coupe bi yàlla dogal ko wax ma jël coupe bi donc loolu mooy li am beneen bi maa ngi sant samay collègue wala sama équipe bi ñun ñëpp ku ci nekk yaa ngi ci mbir mi di ci jàpp guddeeg bëccëg pour mu sotti kon ci loolu ku ci nekk ñu ngi lay jox jërëjëf donte yow sa liggéey ngay def waaye tamit di profiter encore ci antenne bi di jaajëfal KMTV parce que di wax ne xëy na ñoom ni ngi ci benn liggéey te liggéey boo tamit dañ leen ci war a gunge mu nekk liggéey bu am solo bu fekkee dem zone sud bi am na yu bëri daawoo fi am te mu ngi am des intellectuels de haut niveau des cadres de haut niveau ñu fi am donc dem ba ay jeunes ay ndaw xale yu ndaw gis ne carrément ne war nañu fa mën a créer benn groupe média ñoom ñoo koy commencé ndànk-ndànk loolu c'est une chose vraiment à vraiment à soutenir lu ñu war a jàppale la lu ñu war a applaudir la kon ci loolu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di wax ne léegi seen liggéey bi ci biir zone bi ñun gis nañ ko te lépp loo xam ne aussi war nañ a ànd liggéey rek ñun par nañu pour loolu jërëjëf. jaajëf jaajëf mbokk yi ñoo ko déggandoo muy kàddu yoo xamante ne kàddu yu am solo la eh, ñu bàyyi ci xel ci kàddu yi nga xamante ne joxe na ko ku ku dégg kàddu yi dina xam ne aussi defar rek moo ko tax a jóg kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal di la wax ni nga abonné bu fekkente ne abonné goo ci li nga xamante ne moo di chaîne bi nga jox ñu li nga xamante ne moo di sa commentaire par rapport ak vidéo yi nga xamante ne moom lañ def mais ak par rapport li nga xamante moom mooy gardien bu ASC moom moo gagné ki nga xam ne moom mooy renaissance suun tey jii nii ñu wax ak moom tey jii jéem a sa euh, weccoonte ak moom ay kàddu tuuti ci nga xam ne mooy par rapport ak marché bi nga xam ne dox na ci diggante ASC Mbadet ak ASC Renaissance tey jii nii gis nañ ne marché bi nekk na marché boo xam ne marché bu difficile woon la ci ñi nga xam ne moom mooy ñaari camp yëpp tey jii nii ñoom ñi nga xam ne mooy ASC Mbadet ñoom mujjee am ndam marché bi tamit mënoon nañ wax tamit mën nga ko préparé wala noo leen ko jëlee woon tey jii hmm. bon avant tout maa di gërëm ñëpp ñi fi teew xam nga parce que malgré am na ay quelques altercations mais tamit jeex na ci jàmm mooy la kon donc man ni ñu préparé match yi mën naa ne comme ni nga daan préparé rek parce que fii amul équipe bu ndaw match bu nekk ak ni koy préparé kon donc yaakaar na tey yàlla may nañu ndam xam nga ñu koy sant yàlla bu baax di aussi di encouragé tamit ay ASC e Renaissance démérité ñu quoi vraiment match bi neex na xam joué nañ ko dans fair play te aussi xam nga nice na quoi. nice na kon ba tey jii rek dañuy xool tey jii dañuy jëm ak yéen ci nga xam ne match bi nga xam ne joué nañ ko tey jii ba tey dañ ciy desandi mais match bi tamit gis nañ ci tension yi ci ne ñoom ñoo nekkoon ci biir mhm. bon parce que euh, mën naa ne ñun ñëpp xamante nañ quoi. Mhm. zone bi képp koo fi laal tamit laal nga sa rakk wala sa mag. Mhm. donc moo tax xam nga saa yu bëggee dégénérer rek ñun ku ci nekk da ngay jël sa propre initiative xam nga taxaw ko quoi ba instant yii lii lii dafa nice. Mhm. imagine tey jii gagné nañu ASC Renaissance ñu saafante ak ñoom mhm. yaakaar naa loolu mooy sport mhm. képp ku fi xiiroog ngaa yow daa fekk yow xamoo rek nu mu demee dëggal tamit ku la dëgg foon trop mais boo koy défendre dafa war nekk ci fair play donc non la quoi waaw kon batay ji rek dañuy desandi ci masse bi nga xam mom moy masse match prochaine bi mhm. kon yaakar naa ne xam ngeen kan ngeen wara am j'espère que ak masse bi ba xam yeen di ngeen ko jouer comme marché bi ni wala tay benen marché la bo xam dañ koy wajjal benen façon waaw mën naa ne mën nañ ko wajjal ci benen façon mais tamit euh rythme bi ñuy démé mhm. ñaan nañu yalla diko wañi quoi parce que tamit ñoo nañ fi wane le maximum té yaakar na euh, bi di ñew tamit da ngeen gëna a gis loo xamante ne lii aussi euh, euh lu gëna ki quoi garaaw KMTV une chaîne YouTube bu leen indil ay xibaar yu wër lèr ci politique économie santé éducation religion sport ak yenen événement képp ki nga xamné ne nga bayé ko Kër Mousse moo xam nga nek ci biir wala ci biti di nga mëna sétane séni événement wala match navétane yu gëna neex ci biir KMTV KMTV ñëriñu wa Kër